C'est Ferraille di association sportive et culturelle nekk fii ci amal yëngu Niel ñeel set setal goxam dimanche bi Uchimani, ci ak ay partenaires yu conseil de quartier bu Ferraille Kodima Migdev Bede Anne, Hann mairie bu Hann ak bàjjenu gox yi ñu nemmeeku ci mbooloo gu ngir mën a ci gi ngir taral ak améliorer cadre de vie bi Bes bi nak bon dañoo nekkoon ci benn phase boo xam ne mën leen continuer continuer la woon bon ay acti ay activités yoo xam ne Tableau Ferraille moo ko sumboon ci ci ci ci ci ci ci début bi bon xam ne nag bii mu nekkoon booy xool suñu booy xool suñu troisième activité bon ñu doon préparer defar na suñu koñ suñu cadre de vie améliorer nan lañ ko mën a amélioré xam nga xool def nettoyage bon population bi yëpp génn nañ macha allah di féliciter ñëpp laal waaw. ASC bi dañoo organiser journée set setal boo xam ne nii dañoo woo dëkk bi yëpp génn amul xale amul mag amul ndaw ñëpp la ñu woo kon nag ñun bàjjen yi ñoo ci war a jiitu ndaxte ñun ñuy yore sensibilisation dëkk bi kon nag kuy def lii daanaka ñun nga koy defal ñun ñoo ci war a jiitu moo tax kenn jiituwuñu ci dañoo xëy suba teel ñëw ànd kook ñoom fu seeni ko ànd ñoom ba journée bi jeex tàkk nag. dañuy sant yàlla lu bari bi ñu ñëwee ASC Table Ferraille tey fekk xale yi di bale yaram bu daw laa am. parce que lii suñu génération qui ci en 1988 C'est la première fois que nous bi génn balé géej bale koñ bi avons ñu plus tard nous ci faire en fekk suñuy doom suñuy Ne nek ci koñ bi diko balé euh, c'est une forte émotion di leen ñaanal yalla nak parce que la fay ñuul Nous fay ñom ñoo ci cadre de vie am action citoyenne suis le témoin pour que ñom aussi ëllëg seeni doom ak seeni rak parce que koñ terrain ba avons ñuy c'était une décharge ñu gas ko sul ko mu décharge ñu bale ko wat ko ba tay fa lañuy entraînement ñom nañu fexé fofu ci seeni liggéey ak seeni jëf ñu mën ko évoluer ba mu nekk lenen geej gi fi projet bi ñu di projet bu nga 93 milliards

donc ñun ñu man mooy bon jéem a xool nañ la mën a defaraatee suñu cadre de vie mu am suivi parce que jamuñu fi kese bu ñu jógee tey jii à chaque jour que jëfee dañuy nekk veille quoi dañuy veille ci ci suñu sécurité koñ dañuy veille tamit encore suñu mobilité koñ dañuy veille yi nga xam ne peut-être bon mooy ñoxol jëmal koñ bi kanam quoi te ñun ci loolu lañ jóg instant bi waaw bien vrai que nawetaan amul ren mais lii nawetaan laay wax man tamit lii nawetaan la parce que nawetaan Covid 2019 dafa am quoi. donc dañuy wax ne association yi nekk ci dëkk bi yëpp yoo xam ne bon football moo leen taxoon jóg ñu dugg ñu wu ci yu mel nii quoi parce que defar sa koñ tamit jaamu yàlla la waaw jaamu yàlla la bon lii daal vraiment day am suivi jun waaw day am suivi quoi. di fas yéene sensibiliser nag nit ñi ñu jàpp tamit ci set bi nga xam ne am na tey set bale nañ ba pepp suuf desu fi pepp mbali desu fi mu continuer ndaxte tali bi ak mbedd yi ay kër ñoo ko seq te kër yooyu ku nekk boo xëyee di bale sa bunt. suuf dootu fi desati lii sax dootul amati mën nañu wax set setal bii ndaxte bés bu ne day set waaye bu ñu balee tey rek bàyyi ñuy xaaral beneen yoon pour set setal loolu du am continuité continuité bi mooy nit ñi ku xëy nga bale sa bunt boo mënul waa bale waale sa morom tamit nga bale fi nga sa bunt ba fi mu yem keneen bale buntam ba fi mu yem mu tondi suuf si jëlee ko fi bu ko defee yoon bi dina set mbedd yi ndaw yi tamit dinañ set section féminine bu ASC bi ak bàjjanu gox yi ak euh, groupement de femme yeneen yi comme ça ñu waxtaan ci ñu seet bu fekkee ne ni mënul doxee comme ni ma ko waxee sànq ku nekk di bale sa buntu ñu def ko maanaam bu ñuy balee semaine bi ñuy bale semaine bale bu ko defee li li chaque jour day set daal bu fekkee semaine bi ñi ñoo ayee bale chaque jour dañuy bale beneen semaine ñeneen jël bale

c'est-à-dire que dafa am lo xamantane ci biir opération yoyu daf ci am benn certaine citoyenneté buñ ci wut manam benn conscience motax da ngay gis des associations privées telles que la CRAB telles que MIGDEV et d'autres yo xamantane ñi ngi fi dañuy wàcc ñëw ànd ceex ñom and ci dynamique bobu def opération d'envergure baxna notre trop mais damay faral di wax ne li gën moy ñu bayyi xel par rapport au comportement nañuy éviter di saltel nañuy éviter di sànni nous éviter euh, di de mbalit mi di pour que nous puissions faire. d'autant plus que UCG est ngi fi nos partenaires de tout le temps L'opération bi ñu am dañ ciy faral et moo mairie Hann Belair mobilisé wu agents ak élus ak association en sorte que l'opération soit opération une réussite donc Modou Ablaye président de l'ASC Ferraille Moussa Fall Ousseynou et toute l'équipe nous ci tous dañ leen di féliciter di leen encourager. mu bokk ci lu ñu ardu muy phénomène bi di lëmbe réew mi di émigration clandestine kii di président bi ak bàjjenu gox yi tamit naqarlu nañu ubbile mbir ba pare di ñaax ndaw yi ñu delloo ci seeni xel. bu ñu sañoon suñu xale yi moom dañuy toog di liggéey ci suñu wet lu ñu am ñu bokkook ñun ndax tukki bi moom gis nañu li muy am li li fa nekk dëkk bi neexatul. te am nañ fa ñoo xam ne tamit gàllankoor nañ fa mun mënatuñoo ñëw bàyyi fi seen njaboot bëgg a ñëw loolu te ñoo ñëw kon nag buñ sañoon ñu toog fi waaye xëy na jafe-jafe moo leen ko indil parce que tamit buñ amoon lu ñu jàpp fii xëy na ñu ñu jàpp ca ndax mool yi sax amatuñu dara man mii di wax ak yow am naa doom buy dem géej waaye ba mu gëjee am 5000 francs xaw ma kañ la bu ñuy dem bali ba ñëw ñu am dara jëndee waat ko essence wala gaal gi naru ko duñu ñu am dara ci fanaan ci géej gi xam nga loolu tamit neexul too waxee ñu ne bateau yu mag yi ñooy mbaal jën ñom mënu ñu am dara xana gouvernement wax ci rek ba batay mak yi bu fekke dañ leen fay xaalis di mbal suñu jenn ñu bàyyi ko bàyyi xalé yi mbal ko di ci jariñu bu ko defee xalé yi tok ndax ñun mënu lañu leen wax luñu dégg de ñi ngi wax dé waye duñu dégg ndax ñomit luy leen tékki rek lañuy wër wa kon nak nañ leen wutal luñu japp jàpp daal loolu mooy solution bi. barsaax wala barsaax bi dafa nek fenen bo xamné ne dafa commencé wat te yaakar na né yaraax pas mal fan yi si ginnaaw rek gis nga am na loo xam ne jàpp nañ fi ay doomu Jaraaf yoo xam ne ñu doon dem ci clandestinement bi quoi waaw vraiment loolu moom bon ñun dañ koy ñaawlu quoi parce que loolu yàkkamti sa àdduna la te jaru ko quoi xam nga jaru ko man nañ man nañ toog fii liggéey xam nga gagné seen vie naïvement honnêtement quoi xam nga sans pour autant que ñuy jël train loo xam ne amoo amoo ci mucc laal xamuloo yow ba ndax di nga àgg parce que géej amul banque amul branche foo xam ne boo demee mën nga wala nga noppal donc man laal gis naa ne loolu laal dafa nekk loo xam ne vraiment bon dañ ko ñaan yàlla mu jóge fi laal baaxul quoi day day delloo jeunesse ginnaaw te booy xool pas mal de semaine bi passée lu mat 500 personnes danañ ci ak génn gi sax Dakar donc loolu lu ñaaw la il faut ñu toog ñun tamit ñu xool nan lañ mën a sensibiliser sensibiliser les jeunes waxtaan ak ñoom xam nga ñu loolu ci suuf quoi vraiment man laal gisuma ci mucc bu rafet laal